What up, guys? What up, guys? What's up, everybody? Summer guy. <laughs> yeah, before going further, allow me to introduce myself again go by the name of Malachon, and I'm from Senegal, West Africa, usually my town. Rigoma <laughs> Ipab J, Ibrahim Dao, Mustafa Aman, Dagoud from Belgium, Abaka Jallo from Russia, his elder Ismail Diallo, Rigoma Amadou Dam Diagne, Somosie Rigoma Mana Nyama Salon, Rigoma Omar Fal. Nyaw Siki, Mumudu Fal. Nante Kola. Fatsila, Fall Mota Ho, Rigoma guy. Bigé Malachon TV. Ça, gars, je vais parler de voir du couvre-feu, li Ambour, tu vois.

quand même commencé ñu Dakar ak Thiès c'est la catastrophe un peu partout au Sénégal Saint-Louis fi Kaolack ak ay Touba fu dañ koy dañ koy it doesn't make sense sax waru donc préparer leen pour ñu soit à partir de 22 h I don't know mais luñ ci rek man ma benn benn benn yërmande bi quoi sama xol moo commencé woo parce que tey euh, mag boo ko joxee sa baat nekk rey ma lu ko neex la lay reyee te ku la ba napp napp na la tey ji maanaam nit ki dafa mel ni rek nga am jabar sa jabar euh, sa jabar ragal wujju mu ragal ne man ne man du ma du ma su ma amee wujju damay damay man ne dama si content parce que ñun ñoo ko bëgg en ñun ñoo bëgg loolu noonu quoi ñun ñoo bëgg loolu ñun ñoo ne fii fal nit ba pare ragal ko fal nit ragal ko mooy na ma koy waxee toujours tu vois dañu fal nit ba pare ragal ko ñi ñoo leen fal mais dañuy ñëw duñu duñu jaay affaire quoi te suñu mindaan lañ ni ko waa kër kilifa kër gi waxee c'est très dur mais suñuy mindaan lañ suñu ñoo leen fal pour ñu liggéeyal ñu tu vois avant ñuy jot donkaasi gi mënuñu woon saako buy mënuñu ko woon tonni saako buy mënuñu ko woon tonni ñii location la ñu nekkoon ñii amuñu woon dara ñu fal leen seen doom yi di jaay rewante dem Europe di photo ay xaa yore ay oto yoo xam ne yëpp temps fii machine u jalis yi ñu ngi fi ku fi feebar si net bi bu la Marème Faye Sall dimbaliwul dégg nga ah ak yeneen ak yeneen tu vois ils n'osent pas faire ça en France romb ministre naankaan sama monsieur le ministre awma courant non non sañu ñu loolu wala ngay def yenn dépenses yi def yenn folie yi nii mais da ngay wàcc parce que pareeguñu sax pour développement barki rasulaay sax pour développement parfois da ngay dem ba da ngay fedab da man du ma ci waxati wala yéen donc couvre-feu bii nii ah, man de dama jàpp man sama xel bu gàtt tant que ñàkkuñu Sénégal gépp seen seen seen bi du jeex man cirque laa koy jàppee cirque laa koy jàppee supposition ñu ngi koy supposition yi ñu ne ñu ngi koy def nag gars yi supposition bu ne gars yi ñu ngi koy def tu vois xamuñu parce que ñoom li tax ñuy def yi ñoom ñoom rek nga xam dañ lay wax ay feebar ay taux wala affaire ba léegi que Bill Gates population mondiale bi wàññiñu ah ñu dañuy ñàkk pour tey jii xam nga injecté ñu ay puces ñu détectable un peu partout xam nga ñoom daal lu ci mën ñoom seen affaire yooyu ñuy def ñoom waa France ak ñu am doole ba benn portion doomu adama ne ñoom ñooy dawal àdduna bi ah, teg ñu pression bëgg ñoo mbugal te yàlla mbugaluñu yàlla du wàcc ñu faj leen du wàcc kenn di fajal sa su bopp soxla yi mbajam kanam borom a koy daam fair play nag yàlla ne ab sàkkuma leen ngir dara pour ngeen jaamuñu te yàlla da ngay toog ne yàlla aw ma sax yàlla di la may xaalis da ngay toog ne yàlla man atela góoma yàlla yàlla jox la sa santé mais ñii des personnes semblables comme nous bëgg ñoo yóbbu àllaaxira te neguñu bëgg ñoo yóbbu àllaaxira te neguñu ñu nangu ko donc ah, welcome welcome to the dictatorship lu neex nañu def parce que ñun ñun la ñoo bëggul baax ñooy gis ñu mel ni Sonko su ma ko ñaan ay kii ñu ni Sonko en ñoo ñu daal ñun la on peut s'en euh, vouloir qu'à nous ah parce que dem ba conscient conscient defar seen dëkk dem ñun ba léegi ñun ñu ne si ay affaire yoo xam ne mooy loolu nekk ci ay wayaan nekk ci banam beneen esclavage sans sans sans les chaînes tu vois sans les chaînes tubaab bi ñëw suñu waay jàpp suñu doomu aadama yi suñu kii fii suñu suñu suñu population bi di leen mbugal suñu population bi di ko xool te mënuñ ci dara mënuñ ci dara gis ngeen am na reportage moo tegoon affaire gerte gi un ami dem Europe ñëw indi xaalisam investir si gerte bi gars yi ñu leen jaay doole au bénéfice de chinois chinois yi fi nekk ak tubaab yi ah, ñëw suñu dëkk ñu nekk des locataires dans notre propre pays nekk des locataires dans notre propre pays boo xeexee étranger étranger bi la tu ñoom ñoom moom moom tey jii chinois yi lu neex la ñu fay def duñ fay salaire yu baax jàppee nit ñi jàpp ñoom li ñuy def fii xalaatuñ ko def foofu noonu xalaatuñ ko sax buñu demee foofu ay lu ne la ñuy traité gis na étudiants chinois yi li leen defoon nag yoonu donc ñun ñoo war a am benn remise en question fajal suñu bopp ñoo war a mën a fajal suñu bopp volonté populaire Sénégal léegi dafa am benn égoïsme tey booy jaay sa yàpp sa bénéfice des autres ah man sama yàpp ngi dox bu ko neexee ne def lu ko neex kii tailleur bi tamit wax loolu mais am na loo xam bu ñëwee ñëpp lay impacté tey bu yow bu fekkee yow sob li ngay dund rek lay intéressé ah mais bu leneen dalee leneen da dalee collectif bi lay lay lay impacté ji bu ñu xoolee tey ji corona bi bàyyiwul kenn bàyyiwul tailleur bàyyiwul feccakat bàyyiwul boucher bàyyiwul caga bàyyiwul bàyyiwul kenn bàyyiwul gardien bàyyiwul kenn donc bu ñu di wax parfois da ngeen xam ne kii lii moo tax muy wax mais suy wax ngeen ngeen bëri wax wala système bi du mës a changé Sonko du mës a nekk président kon ñun kan ñuy changé kon kay ñun lii neex na ñun nañu kon rek ñoom ñuy dara ah ñun ñuy lu leen neex ah lu leen neex ñu imposé ñu ko boo demee tey jii fële problème mu euh, problème mu mbuur bi vraiment dëkk boo xam ne tey jii waa ji buy campagne te mu la une famille un toit mais léegi c'est une famille dans la rue une famille dans la rue wala des familles dans la rue parce que tey jii man mënu ma concevoir tey jii ñu ñu ñu ñu ñu ki nga koy délogé te am amul ay mesures d' accompagnement quoi pour man nit ki boo koy jëlee si marché place sax war nga ko préparer ci loolu wala après war nga jéem a créer benn plan B pour loolu noonu quoi mais xëy suba rek ñëw dàq nit boo xam ne tey jii yow <laughs> da ngay ku liggéey vingt ans terrain yi ko am enseignants yi nii ils sont très fatigués da ngay dem ba yow tu n'es plus motivé enseignants yi dañuy dem ci parfois ñu def ay ay di ko jaay élèves yi ak yeneen def ay cours de renforcement parce que ils sont mal payés ils sont mal payés ils sont mal payés da ba dee quinze ans vingt ans doona mën di laa réaliser pour li from hand to mouth ngay vivre au jour au jour le jour te bon nombre de Sénégalais mooy loolu location mi mi ngi nii ñëppay loué kër yëpp tas na kër yëpp tas na bàyyi dana kër ga tas na après ñu am problème location ñu jaay seen kër bàyyi ah euh, kii loyer ne tey jii peut-être même ñu fekkee dañu jalgati yoon fi ñu tabax war ñu tabax yow mais war nga dellu sa kër jàkkaarloo sa écran plat say 15 mille daan say doom nga leen war ay millions par weer wala 5 millions ah nga sacrifier leen quoi pour jox ko ñeneen quoi habiller déshabiller gens pour habiller Paul quoi loolu moo lolu mo fam it's a pity it's a pity de xol sama population ni ñuy sonnee parfois da ngay tok sax ne dootuma wax te damay focus sama rap music wala may dara tax ngay kaas ngay kaasal ñoom bëgguñu bëgguñu dara tu vois bëgguñu dara bëgguñu dara dañuy ñew ñulay ñulay ñulay décourager sax au fait ha da ngay ñew di wax ak ñom di tutu pas pour ton peuple mais ñom ñom ñolay jox lo xam ay pig ay bëgg décourager ay doole mësa nek président ah c'est trop tôt jangat leen ba ci kanam politique parce que la doon la may jangat politique bi jangat sàcc la mooy jàngat politique bi ah, jël ay këru jàmbur nangu ay terrain jàmbur jox ko ñeneen la mooy jàngat politique bi les entreprises locales nga jël leen rey leen jox ko ah, sa sa ñi ñi la al ay bët les ailleurs loolu mooy loolu mooy jàngat politique ah loolu kay jarul loolu jarul jàng parce que loolu moom vraiment dicté préparé la quoi le président africain pour man dicté préparé la quoi da ngay toog ñu defal dicté préparé quoi defal lii defal lii jaay lii jaay lii nga subir des qui viennent d'en haut soo amee benn jeune bu ñëw mel ni Sonko bëgg indi la rupture rupture ngeen diaboliser ko di def loolu di ko loolu te après ces mêmes gens là nag ñooy toogaat naan mu koy sonal Macky Sall nii Macky Macky xoolal mi bi pidi mi bi pidi na gën a metti na gën a metti na gën a sedd bu gën ñoom ñoom ñoo koy wax ñoo koy wax yéen c'est vous qui avez choisi Macky Sall au donc faut les assumer booy takk jigéen ñu la jigéen bi baaxul day dox guddi jigéen bi cagal nga ne moom laa bëgg moom lay takk jigéen boobu nag boo ko fekkee beneen góor di ko teens yow bul nekk fi naan sama li ma def nii parce que tu averti loolu mooy Sénégal fii ko il faut qu'on ose dire mooy Sénégal ah le gars vous a fait tant de kii damay def cinq ans rupture cinq ans dama koy def du ma def sept ans de ah, cinq ans laa def mu ñoom ne def mu de sept bële bokk ci du ma def ñu mën a faire deux mandats consécutifs ñu andi nga laaj ko ma dootuma ci wax mais tant de signaux yoo xam ne waa ji jox na leen ko yéen ngeen ne bëggu foog bëggu leen bëggu leen tout temps ngeen koy jox ay bénéfice du doute bénéfice du doute ba xëy dee nag yàlla na leen doute dem leen donc loolu tamit quoi man des fois du ma du ma du ma du ma du vraiment du ma xàmmee sénégalais tu vois y a des gens xam ne tey jii vraiment ñu ngi euh, problème ndox ndox moo xam ne tey jii maanaam comme ay waa Kaolack ay waa Touba nga xam ne ndox mi neexul pendant des années tu prends pas de la jëloo solution yow da jël euh, préparé def ay stade olympique wala nga def ay kii arena yoo xam ne basket yoo xam ne pour bu gars yi romb ngi bëgg a ga yi ñu ngi bëgg a dee people are suffering people are dying ñi ñu ngi dee fu mu ne nii dëkk bi ñëppay ñaan ñam xaalis du ñu ñëw soo amee liggéey si koñ sax yow boo génnee da ngay ragal génn parfois tu préfères t'enfermer ta chambre doo ngay daw tu as envie de prendre l'air tu le prends pas parce boo génnee nit ñi may ma lii facture ku naa kër ga bàyyi ma fa dara nii après tu comprends pourquoi les gens qui sont aisés ils veulent ils dégagent pour aller pour dem pour dem dëkk ay quartier quartier parce que da ngay nag mais nag moo yàlla mu mën may ñëpp sax te ñëpp donc yow fekkee da nga yàlla di la tuuti nga ñëw nga bëgg a li nga yor gaay bi yàggee nga mel ni ñoom li fukki fukki baadoolo ñeenti baadoolo ku leen di dimbale fukkeel leen yooyu mooy yu bëri da nga koy xam ah, tas kenn supportetul kenn tu yooyu la gars yi dund ah, bëgg a tëj nit ñi couvre feu kër yoo xam ne tey soo demee ñaan ma ko yàlla mais ay Médina dafa dafa peuplé ñooñu nga bëgg leen tëj ne tey jii wala ngeen bëgg leen tëddloo huit heures boo fekkoon six heures six heures xam ay huit nga tëj leen comme ça ani loolu a ah, dañuy pousse sama bi dañu koy pousse fekk am na sax dañu koy pousse gars yi tal ay man laa tëdd nii mooy loolu ak yeneen ak ah, kër yi dafa mel ni chambre chambre chambre kii yi université yi fële na la ay colo dal ak yeneen yi tey noonu lay demee quoi day nekk affaire yoo xam ne mooy euh, day fees ko day fees boo demee fële euh, université mais chambre wax ne pour deux personnes la boo béb buntu fajar lu béeku parce que gars yi ñu tudd bu foofu noonu ay mel gàddu la ñuy teg loolu ay réalité la de la vie étudiantine gars yi loolu ñuy dund étudiants yi sonn dafaa doo leen fay seen seen bourse nga toog ne yow euh, artistes yi génn nga may leen un milliard étudiant bi daan wat may lii mooy lan lii foutaise la wala la étudiant bi moom mi nga yow nga euh, Euh, bu problème amee nga jël paas rek ñëw sa Tëngéej wala Pikine reer mais di ñaan bi jógee Diourbel mu jógee euh, Casamance ah, kooku bu ay bourse jeexee tey jii kooku lu muy dundee Dakar lan lay dundee Dakar ku koy jox lu mu lekk kooku boo demee sa bourse bi si lay jël benn 13000 wala 15000 jënd si benn saako ceeb euh, saako ceeb bu mbay wala dara jëm ko nga jox ay artiste mais il sera bouleversé loolu waral booy di toj ay def affaire parce que nit tamit buy réagir si dara da kii la moo tax muy réagir la moo tax muy réagir parce dañu offensé parce que tey ji maanaam tey ji maanaam ingratitude ak xamul mu koy noonu sax injustice mooy waral yooyu noonu mooy waral yooyu noonu da nekk benn frustré mooy li may wax gars yi ay Barça lu ñu jógee di parce que fii c'est la mort tu es déjà mort dès la tey di ñëw wala moo lay safati ah, nekk jeune am doole ci sa fil am lépp di daan télé bi gars yor ci iPhone 12 ah, di la agressé ay film nga ngay dégg ay milliards dëkk bi dox na amee mais lu tax dëkk bi dox ni man bokku ma ci soo amul iman dëgg wala amoo yenn yi tey ji agression ngay dem boo dee jigéen da ngay cagatu parce gis tey ji parce na mais jaamu yàlla léegi la gën a jafe ah mais euh, pour man kii tentation yi bëriwul quoi jamono yi ay gëléem la woon tàndarma wotu ay kii yor ay jaas yi mais xoolal léegi iPhone 12 yi génn ah oto yu rafet yi génn tooy boobu amoon nag bëgg toog a songoor day metti day metti bàyyi faal da xool sa bopp tu vois sama gars loolu amoon lu may wax tey ji benn bref euh, summary scientifique def benn récapitulatif moo fi ne ne tey ji boo jëloon li gars yi doon dund ba léegi moom la ñuy dund ba léegi moom la ñuy dund ay affaire yoo xam te vraiment li ko Sonko wax dëggal dëkk yoo xam nga jox ay sec ay milliards ah ñes ay fonds comme huit milliards te lu mu fa nekkee yow lan lu muy liggéey ñëpp mën nañ ko liggéey billaahi nii rek ma madame kii femme tu as trois trois minutes vous la parole oui non soyez restez tranquille nga jox ko budget huit milliards non man dama dama man parfois man damay toog man Sénégal am ñoo xam ne tey dañuy nekk ci entreprise lu ñu retraité paa yoo xam ne du ñu retraité ba faa tamit paa yi dañ leen comprendre du seen doom bi leen ki leen war aaw kay amul tey ji fekkoon ne Thione ak Wally la Thione Seck mën na bàyyi parce aaw na ko mais paa boobu 59 ans 60 di liggéey mais yooyu yoo waral loolu moo koy waral parce que da ngay nekk ci kër ki la war a aaw ah wayagul sax duggul duggugul studio ba lay aaw loolu yow noonu nooy def mais paa bi day daw moo tax paa nga gis ay paa yu dawal taxi quatre-vingt-cinq ans soixante-cinq ans barke rasulullaay ah ay maire yu am ay quarante ay soixante ans nekk ci mbedd bi di jaay fii jën di dem parce que amuñu ku leen aaw mais président yi peut-être ñoom xamuñu loolu quoi ñoom xamuñu loolu billaay xamuñu loolu Sénégalais yi denn ah, ay booy tu as xool c' est l' nga am bac say ay naan ñu balaa dégg nga am bac daf yàlla non boy fu ne nag c' est la porte de l' avenir quoi bac moom mooy mooy la porte de l' avenir fu ne affaire yëpp tijjeeku na mais boo demee université ba ah, dem teg ay xeer foofu ah, bu dee bu anglais nga dem ah, yéeg fii teg fii ñu taxaw si buntu bi ñax naan nii booy am nañ jom bi day booy am nañ jom nga daas ka fa nag ba ba jàll première deuxième année nag xool am bourse entière gars yi na duñ lay fay yenn fois nga dem ba am bac te yaa jàpp ne foo liggéey cadre ngay doon les années passent vite da ngay jékki-jékki ñoom la booy am nga 35 ans mënutoo dugg mënutoo dugg fonction publique <laughs> nga toogaat def nii gis feccakat yu mel gis ay maanaam ay ay ay gars xam tey jii maanaam ñoom ils sont dans le ridicule quoi ay Paulus naanaam waxi dof yor ay ñaari oto xoolal géré fi yow nga toog yoru dara te yaa jàngoon ba plus sept te yow lañ nga waxoon ne yaay avenir dëkk bi saay loolu garaaw na ko dox nit ah toog ñuy may nii ni ñi di am di dof dof lu yor ay millions nii yow nga jàng ñu ne yow yaa doon avenir dëkk bi mais léegi yow doon saraxu dëkk bi <laughs> Sénégal li fi nekk ku a a xuusit dafa metti nekk benn xéeda bu bon tu vois parce que moom li mu waroon ak système bi def na ko mais est ce que li système bi bu waroon ak moom def na ko est ce que bi waroon ak moom def na ko loolu mooy problème bi sama gars sama gars yi ma ko fii quoi parce que mooy loolu quoi de doo sama kanam gu ñaaw génn Malathion the best Malathion TV best channel boo demee Instagram Malathion mi naa ni nam seen doo ko fépp mooy loolu vidéo yi dina ko yow bi parce que vraiment mooy loolu euh, loo fi wax rek maanaam loo mooy loolu bëggee sama gars